maître Cheikh Tidiane Dabo maa ngi lay nuyu. maa yow euh, avocat nga ca barreau bu Strasbourg da ngay itam yëngatu ci wàllu investissement yi ñuy def ci Afrique en tant que euh, conseiller waaye maître dañuy tàmbalee waxtaan wi ak euh, immigration clandestine ginnaaw bi ñu la gërëmee am mbégte dalal la immigration clandestine nag li ci bees mooy ñaari doomi Sénégal yi nga xam ne gis nañu seen ay néew guddik talaata jàpp àllarga gi ci détroit bu Gibraltar ci veille bi aussi lu tollook téeméeri migrants gis nañu leen. ci ndox mi ba génne leen euh, rawale leen ci Maroc euh, naka nga jàngatee metre tàmbali bi nga xam ne gisaat nañu ko ci immigration clandestine euh, gannaaw bi nga xam ne ni seetlu nañu lu mel ni pause jamono yi ñu weesu. waaw na lii mooy wane ne rek lépp li nga xam ne jumtuwaay yi ñu yëpp pour bañ immigration bi am jumtuwaay yooyu yëpp dafa laaj maanaam amul benn. politique boo xam ne def nañ ko pour mun a euh, permettre euh, ñi nga xam ne mooy xale yi ñu mun a am xëy euh, ci seen ci seen ci seen gox yi ndax tey jii bu fekkee ne xale yi ñu ngi jëlaat gaal gi di dem di dem ay Europe ay dañuy ñàkk seen bakkan moo lay wan ne rek tey ñun lajj nañ ci lépp te waruñu xaar ay Europe ñu ñuy ñu ñuy wax lan lañu ñu war a def ñun si suñ wàllu bopp ñoo war a xool def suñu politique nga xam ne ndaw yi buñ ko gisee dinañ mën a sawar toog te xam na fii dëkk bi Euh, am na loo xam ne tey mun nañ ko fi liggéey ñu am lenn loo xam ne dinañ ko ñëwee ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew waaye loolu dafa dafay dafay dafa dafay wane ne rek xëj na euh, euh, li nga xam ne moom lañ leen di wan mooy maanaam ci wàllu ay ay jumtuwaay ci wàllu ay liggéey yi nga xam ne moom lañ leen war a wan ba ñu créer ko loolu moom moo manqué fii ci dëkk bi du du Sénégal rek danga naan ci Afrique bi ndax xalaatu xëy moo manqué dañuy jël rek di dem di copier yeneen mais xalaat toog di xalaat ne ñi la ban façon xëy lañ mën a jox suñu suñu yi ba nga xam ne dootuñu mun a demati fen loolu moom lañ mënut waaw loolu moom ñu mënuñu ko mënuñu ko te buñ ko mënoon xëy na ñu mel nii dootuñ dootul amati waaye nag ah dañuy dem ñi ñi leen di imposer yenn yi euh, yenn politique yi euh, xëj na man man sama sama gis bi looloo tax di yëpp am ndax bu fekkee ne ñeneen ñi dañ la xalaatal sa politique mooy sa politique emploi euh, euh, loolu nga xam ne du mun a arranger sa population yu mel nii rek lay am ndax li nga xam ne moom lañ la leen arranger ñoom loolu la ñuy wax et puis moom lañ leen di bëgg a te loolu wax dëgg yàlla ñun dañu am suñu suñu suñu réalité Sénégal Afrique je donc am na yenn genre liggéey yoo xam ne mun nañ ko créer ci wàllu agriculture ci wàllu mbay mi ci wàllu ci wàllu euh, napp gi ci wàllu yu yëpp ak encadrement daal la laaj mais malheureusement gis nañ ne loolu daal manqué na cest à initiative daal manqué na ci dëkk bi hmm. euh, ci Afrique je dirais plutôt parce Sénégal c'est vrai que euh, xëy na ñu ngi def ay effort mais en tout cas teewul ba tey nit ñaa ngi jóge fii di dem bitim réew hmm. donc loolu tamit war nañ ko toog xoolaat ndax même benn bakkan rek bu ko benn bakkan rote ci loolu rek hmm. échec am ndax lépp lu ñuy lu ñuy ñaan yàlla rek mooy bakkan bu ñu sorof ci yu mel nii. Mm-hmm. et bi ñu sentir euh, laaj besoin du war a dem à pour war a mën a liggéey. Mm-hmm. donc wax dëgg yàlla tant que situation bi mu ngi continuer ak pandémie bi mooy maanaam mbas euh, mi nga xam ne mu ngi am. Mm-hmm. Euh, te dafa créer beneen situation bu bu bu nouvelle mooy maanaam économie bi day daanu njënd ak njaay bi dafay daanu ah te nit bu nekkee ci bërëb. da ngay soxla dara loo xam ne da ko mën a yóbbul say waajur bu fekkee ne xale bu góor nga euh, mbaa xale lu jigéen nga ngay gis say waajur ñuy xëy suba teel ak ngoon amuñu lépp amuñu lu ñu lekk da ngay jéem a xaru rek pour uti mm-hmm. mën a amee rek di ko dina dana la ko jaral mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla euh, da nga du dafay loo xam ne doo ko mën a supporter donc léeg-léeg da ngay a comprendre situation yi mais moo tax loolu lu muy éveillé si ñun rek mooy maanaam war nañ gën a concentré wu ci wàllu liggéey bi xëy bi euh, jëm ko toggaat xool naka la ñu mën a def ba nga xam ne xale yi ñu mën a euh, jëlaat gaal gi ne dañuy dem Euh, mhm. maître ñu des bitim réew ak euh, sénégalais yi nga xam ne ñu ngi foofu déjà surtout Europe euh, foofu nga nekk ñi ngay gis ñuy am problème mu këyit en général am jafe-jafe pour nekk en règle ak réew yi ñu nekk lan moo koy waral. waaw li li li li li ma constaté ci wàllu ak nga xam ne dama koy observé. di koy observé ci ay dossiers yi nga xam ne moom laa koy yore ci ay wàllu wàllu régularisation. mooy maanaam. Euh, léeg-léeg euh, da ngay gis ñoo xam ne dañu dul xam yoon bi euh, ignorance day am wala mais léeg-léeg da ngay gis autorités yi rek ñoom daal dañuy bañ pour bañ léeg-léeg yoon bi sax lay leer mais ñu xool ne daal duñ duñ nanguñu la sax ne dañ lay régulariser mooy maanaam mbirum racisme daf ci bokk tamit. Mm-hmm. c'est que ñoom bëgguñu ñun nit ñi ñëw seen dëkk. donc bu fekkee ne bëgguñ ni ñu ñëw seen dëkk duñ leen yombalal bu ñuy régulariser. cest loolu. buñ ko buñ ko difficilelee rek mooy maanaam ñu ñu def poser ay obstacle dañ naan ah bu ko ñëwee gisee te nekk encore seen dëkk yi dinañ ne ñoom duñ duñ duñ duñ mën a ñëw parce que bu ñëwee ñu am këy dina leen décourager da leen di décourager ñoom li ñuy def découragement boobu defuñu ko sax pour ñi nga xam ne ñoo nekk sur le sur sur seen territoire mais ñi nga xam na ñooy ñëw ëllëg moo tax ñu koy def comme ça bu ñu gisee ne fii même boo fexee ba ñëw jël gaal bi ñëw mais teewul boo ñëwee doo mun a am kayit xam nga loolu. Hmm. ñun ñoo koy def exprès. Hmm. donc te léeg-léeg nag day am ay loi yoo xam ne dañ ko teg ne nit bu ñëwee bu defee lii remplir yenn conditions yi mu am di nga remplir conditions yi sax ñi bañal la waaye xam nga ñoom ñoo moom seen dëkk. Hmm. xam nga doo nekk di xeex ñoom di nga dem ba bu fu ba xam ne doonee benn mais léeg-léeg sax da dem ba tribunal ñi xam ne yow yaa nekk ci dëgg waaye nag xam nga politique. mooy lal yenn yi. ñu ñu ñu ñu ñu dëgg seen tànk waaw léeg-léeg ñu dëgg seen tànk nga xam ne lii mbirum politique la ah mhm. léegi comme li ñu doon wax rek en mooy maanaam la lépinisation des esprits même la lépinisation même de l' administration. Mhm. mooy koo wax Marine Le ñoom Marine Le Pen ñoom seen seen politique ñëpp xam nañ ko mooy bu kenn ñëw foofu seen dëkk mhm. maanaam ñoom ñëpp malheureusement loolu la loolu la ñuy xalaatee seen dëkk kon nag euh, euh, foofu daal problème yooyu daal mu ngi foofu mooy maanaam. Euh, difficulté yi tamit dañ koy expliqué ci wàllu économique mooy maanaam bu nit ñi ñëwee bu ñu gisee nit ñu bëri ñëw ñi nga xam ñoo war a am liggéey foofu dootuñu amati liggéey dañuy ñàkk seen liggéey donc ndax étranger yi ñoom bu ñëwee liggéey bu tubaab yi war a def moom la ñuy def. Mhm. loolu lañuy ñuy loolu la loolu la ñuy wax moo tax yu bëri ñu koy ñu koy bañ euh, ñu bañ a régulariser euh, étranger yi. waaye nag li ci mënti am tamit ak li ci mënti nekk am na état yoo xam ne. ñoom faalewuñu loolu par exemple boo demee Allemagne ñoom ñoom bu ñu waree régulariser nit ñi dañ leen di régulariser boo demee Portugal Casaliga boo demee eh, Italie tamit bon noonu kon mbir moomu France da gën a compliqué ndax France ñoom dañoo xaw a doy waar ci wàllu immigration. Hmm. waaw ñoom ñoom dañoo xaw doy waar ñoom africain la ñuy bañ a gis seen seen territoire donc moom constaté nañ ko. Euh, ba nga xam ne euh, wax dëgg yàlla dafa dafa jéggi dayoo. Mm-hmm. dafa jéggi dayoo dinay am yoon yoo xam ne convention yoo xam ne signé nañ ko France sax waaye boo ñëwee sax wax convention yi léeg-léeg dafay compliqué. Mm-hmm. ah nga nekk ci yoon sax mais euh, léeg-léeg préfecture yi duñu nangu régulariser la donc yooyu tamit dafay nekk loolu autorité yi nag mbirum autorité yi la ñoom ñoo war a liggéey ko waxtaan ak autorités françaises yi. Mm-hmm. pour ñu respecter convention yi. donc loolu. loolu nekk na. Mhm. racisme tamit maître euh, yemul ci affaire kayit yi rek ndax euh, yegg na ba ci baro bi maanaam ci yéen avocat yi plaidé euh, lu ni mel sax nga wax ne yow mosoon nga ko dundoo alors ndax mi ngi fa ba léegi wala deñ na. waaw loolu moom xam naa ne pour mu dem pour mu deñ dina xaw a métti ndax tubaab moom dafa jàppee nit ku ñuul du ma ne bàyyi ma sax waaye koo xam ne njàngam warul sore parce que bu nit ku ñuul njàngam sore rek. pour ñoom danger lay demee danger la daal ndax dina mën a comprendre dana mën a xam lu bari mun dina mën a yee ay ay mbokkam donc ñoom nit ku ñuul euh, bàyyi ma wax dëgg yàlla xëj na ci lañ ko lañ ko gën a assimilé ne ko kii li lépp lu mu mën a def rek mooy dem di leen di raxasal seen i seen douche di leen di téyel seen i màgget mbaa nga dem di di di leen di leen di raxasal seen i ndab mooy maanaam euh, nekk ci seen cuisine daal en tout di leen defal yëf yëf yëfu kii daal yëfu liggéey subalterne la mooy maanaam liggéey boo xam ne daal amul solo. Hmm. waa mais bu fekkee ne danga nga bëgg a ñëw nekk magistrat mbaa nga bëgg a nekk euh, procureur mbaa nga bëgg a nekk. Euh, avocat moom day poser problème pour ñoom. bu ñu ko admettre ah man surtout fi ma nekkoon dafa nekk zone boo xam ne dafa xaw a ñëpp xam nañ ne zone boobu euh, pour nit ku ñu nekk fa avocat rek loolu dafay nekk loo xam ne lu xaw a doyoon waar waaw man nag nekkoon naa ci ñoo xam ne nekk naa fa avocat ba nga xam ne ñoom seen journaux yëpp wax dëgg yàlla. tagg ma tagg liggéey bi may def waaye loolu mosu leen neex loolu bañ ko gisee a ah, dañ ne kii moom dañ koy daaneel rek benn yoon waaw pexe nañ nag def nañ seen i pexe waaye nag euh, yàlla moom jaam pexe pexem yàlla yàlla ak dogalam loolu nag ñun ñun ñun ñun dañ koy vivre nag dañ koy vivre waaw mais yàlla baax na ñu ngi góorgóorlu ba tey ah yàlla ñuy bàyyi fii ci liggéey bi hmm. di dem di def ñu wër dëkk bi di wër àdduna bi tamit di liggéey liggéey Mm-hmm. d'accord maître yow itam wàllu suuf da ngay faral di ci yëngatu euh, fii ci senegal surtout yenn saay jëm ci wàllu conseiller wala defendre ñoo xam ne dañu ci am ay jafe-jafe tey problème suuf moom daanaka dafa law ci réew mi foo laal day metti euh, noo jàngatee jafe-jafe yooyu nan la ñu def ba yegg si euh, ci situation bu mel nii ci sa xalaat waaw ci sama xalaat bu gàtt rek mooy maanaam Sénégal am na jumtuwaay yoo xam ne ci wàllu yoon Euh, bu ñu ko fekkoon ne dañ ko appliquer rek euh, baa ñu ñu respecté ko rek wax dëgg yàlla coow li du am waaye bu fekkee ne yoon dafa am yoon ne lii la ñeneen ñëw ci administration wax leneen baa ñuy utal ay ñoo xam ne ay taxe pour ñu mën a euh, jëlgati yoon te ci administration moo koy def loolu ma foi dafay dafay de problème daal li ñuy wax rek kumba am ndey kumba amul ndey donc loolu ay ay jafe-jafe rek lay andi ci dëkk bi mm-hmm. man dama defe ne mbirum dañ war a toog xoolaat ko parce que gis nga bu ñu moytuwul mbirum suuf bii mooy nara a taal dëkk ndax euh, suuf Sénégal ni ñu ko defee Sénégal rek ngay ñëw ngay gis jàmbur jóge ci àll ba ñëw jënd suuf tey dañuy mosoon naa ko wax en deux mille seize ma ko doon wax euh, benn interview boo xam ne sax réew mi FM deux ma leen di wax ne gis nga bu ñu moytuwul mbirum suuf euh, Sénégal Sénégal mun na takk ci mbir mi parce que gis nga euh, avec avec le pétrole pétrole bi xam ne moom lañ fi gis ak yooyu da ngay gis euh, ñoo xam ne dañuy bi bitim réew am alal bu bari ñëw jënd suuf si ci ci ci ci ci autochtone mooy maanaam ñi nga xam ne borom ñoo ko moom te Sénégal amul benn législation boo xam ne dañ naan bu fekkee ne yow doxandéem nga étranger bu ñëw la amoo droit jënd suuf. mbaa boo koy jënd da ngay ànd ak dana euh, sénégalais mais Sénégal rek ngay gis par exemple tey munoo dem Maroc ba nga jënd suuf amul munul nekk ak loo mun ci am xaar munul nekk kon nag ñun Sénégal dañu war a xoolaat suñu suñu jumtuwaay yooyu xoolaat suñu loi ba nga xam ne affaire foncier bi ñu réglé ko traité ko définitivement man surtout li nga xam ne moom mooy risque bi mooy maanaam tey euh, ñu éviter le fait que étranger ñëw jënd suufu Sénégal bi yëpp ba pare dàq sénégalais yi ñu dem à l' intérieur du pays ñuy déplacé wu di déplacé wu di déplacé wu di déplacé amul bann barrière boo xam ne tey def nañ ko fi ba xam ne loolu nañ ko mën a éviter te man ñaan autorité dëgg yàlla loolu dama ko yàgg wax dama ko yàgg a wax sama interview di leen di attirer affaire boobu mooy tey jii da nga ñoo xam ne dinañ jóge tum réew danañ ñëw jënd terre yi te dinañ tax sénégalais yi ñu dem ci biir à l' intérieur de de des terres mooy maanaam dinañ gën a dem dem ba côté Gambie dinañ dem ba côté Guinée dinañ sénégalais yi dañuy génn rek dañuy génn dañuy génn parce que fii finalement problème bi problème économique la boo gisee ku ñëw amul amul xaalis amul dara nga ñëw proposé ko xaalis mais da jox ay teeram mm-hmm. quitte à ce que mu dem dem jënd dem ko xus feneen mm-hmm. kon nag loolu dafa nekk fii te war nañ def très très très attention à ce jëm ko régler parce que suuf daal dëkk am na dëkk yu bëri a leen tax hmm. kon dañu war a def attention euh, li nga xam ne moom la yoon wax ñu koy topp ci wàllu suuf ba nga xam ne euh, problème lañ war na mun a ñàkk parce que gis nañ li am waa ci ci village boobu village waaye Dingler hmm. ak euh, ak li ci am ñooñu fépp ba nga xam ne gars yi delloo nañ gannaaw parce que yooyu yëpp mënoon nañ ko éviter hmm. bu bu fekkee na jaaral nañ affaire yi yoon rek ñu bëri mënoon nañ ko éviter waaw lii yëpp dañ ciy jàngaat parce que erreur bu amee dañ ci gën a jàngaat mm. day gën a yeewaat nit ñi ñu xool naka la ñu mën a def ba nga xam ne yu mel nii dootu a nag wax dëgg yàlla ah mbirum yàlla rek yàlla defal ñu si jàmm daal mm-hmm. te lii nii lii ñu gis moom ah doy na waar mm. doy na waar jërëjëf maître Cheikh ah, Tidiane Dabo amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu tey bi fàttali ni yow avocat nga ca barreau bu Strasbourg da nga yëngu itam ci wàllu investissement yam ci Afrique ni noonu wàllum euh, foncier ñu ngi lay gërëm maître